ñoom ñaar jéggi na su yor jël na Tapha Tine na Tapha ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na di leen jaajëfalaat bu baax di am contentement di jën ak chaque jour nee leen mbégte bi moo leen indil li gën a fës ci xibaaru làmb laataa loolu nag damay nuyu bu bëree bëri Assane Walla sama fay ñu daal di ñëw naa la mais Mbacke fay naa la di internet Leewtoo TV man de te jàkkaarloo moom pour indil leen li gën a fës ci yéen kaay di leen fàttali revue bi ba léegi Huile Jador moo leen koy may ak gàmbu complet boobu mu àndal daal dañu indil pâte vermicelle Jador macaroni j'adore spaghetti j'adore attaya j'adore ah kenn du Aziz Aly Ndiaye ak équipe boobu noonu ca nag kii di au Kayar ndox bu ñuy aar sell set asanwaal gën ci xale gën ci mag ah moo mu ngi noonu ah samedi 19 juin 2021 damay ne saraax ci xew-xew làmb ak journal suñu làmb la mu xëyee nag ci xëtam mu njëkk mooy choc ba nar a am tey jii te Vox Arena daal koy taxawal mu ne choc ba tous les dangers asanwaalo dëgg la Ndeye Mbacké pratiquement journaux lamb yëpp moom lañ xëyee choc de tous les dangers bi war a dox ci diggante Franc ak Tyson 2 tey ci arène nationale Aline Badara euh, Diouf di patron Vox Arena tëgg ko combat boobu nag mu nekk euh, choc boo xam ni ay enjeux yi dañu bëri ndax Franc musul daanu am na 9 combats 9 victoires war a dajeek Tyson 2 mi nga xam ne ni am na 18 combats 16 victoires 2 défaites guy gi ak Elton rek ñoo ko daan mais ci ki mujj moom mooy Gora Sock Gora Sock mi nga xam ne nii euh, xaritu ba benn bakkanu Franc la donc tey Franc war na jëli revanche ci euh, Tyson 2. moo tax combat bi dana nekk choc bu dangereux ndax ku ci nekk kii dafa bëgg a yéeg ci VIP yi. Mhm. Franc ne ko doo du dem dooma ma daan ndax li ma fi ma jàpp kenn daanoo ba léegi ci loolu laay contin ba léegi nag Balla Gaye ba mu jëlee ñeenti avance su ñeenti avance bi duul daal di jël B52 de Bour Boy Niang numéro 2 Eumeu Sène ak Gris Bordeaux suñu làmb rek nee na kat kii yooyu quatre missions yooyu Assane Wall moom lañ confié Balla Gaye numéro 2. dëgg la lay Mbacke comme ni nga ko waxee noonu la quatre mission lañ confié Balla Gaye mi nga xam ni war na dajeek euh, Bombardier war na dajeek Boy Niang Gris Bordeaux ak Eumeu Sène première mission bi moom mooy mu essayer rangé wu ci Bombardier ndax seen premier combat Bombardier daf ko daane woon donc bu ñu dajee Bomba Balla gay war na def tout pour daane Bombardier loolu mooy première mission bi. deuxième mission bi euh, Boy Niang lay dajeek suñu làmb nee na war na montrer Boy Niang que ne accès gul ci VIP yi war na ko delloo place maanaam ci xale yi. troisième mission yi moom mooy battre nettement Gris Bordeaux seen premier combat Balla Gaye daf ko daane woon. Euh, ak euh, ci arbitre bi jox ko kii jox ko euh, victoire bi kii ay avertissement cette fois ci nag bu ñu dajee war na ko daanee ba mu gën a leer quatrième mission bi moom mooy mu war a dajeeg Eumeu Sène Eumeu Sène daf ko daanee deux fois na naa suñu la am ne ne quatrième mission ball Gaye 2 moom mooy stoppé hémorragie bi nga xam ne ni moom la am ci digganteeg moom Eumeu Sène ka am mission bu ngandee ngandee di Ama Baldé sa lëb noo ba jëppikin ba tax na ba mu demee fii ca Paris di préparer combat am la dafa dem fekki magam ñu daal di bokk préparer ndaw suñu combat Balla Gaye numéro 2. dëgg la euh, Ndeye bu dee Balla Gaye day pré 4 combats Ama Baldé moom mu ngi préparer combat royal contre Modou Lo le 25 décembre. depuis mardi nag mu ngi dem Paris journal suñu la am nee na bu fa demee Balla Gaye lay fekki foofu ci INSEAD ñu bokk euh, entraînandoo pour que ñoom seen combat yi ñoom ñëpp ñu mën ci génn. te noonu nag beneen combat ba ñu jëm diggante Bour Sine ak Baaba Maal samedi bi ñu jëm nag mooy tey jii combat bi nag ñaar la relancé wu rek wala confirmé. dëgg la Ndeye Mbacke loolu tey la ci stade Iba Mar Diop euh, promoteur bi di Jax production moom moo ko tëgg combat bi war a dox ci diggante Boy Sine ak euh, Baba Mal comme ni nga ko waxee nag combat la boo xam ne ni kii day chercher pour lancer carrière am kii moom day confirmer ndax Boy Sine euh, dernier combat am moustique moo ko daane woon tey lu ko war moom mooy mu daane pour mu mën a relancer carrière am kii di Baba Mal moom moom dafa daane woon dernier combat am Boy Tine tey dafa war a ñëw pour confirmer victoire boobu mu amoon. bu gars yi di confirmé tey ji ci samedi suba ca dimanche nag bébé Birahim ak Blindé Assane Waalo dinañ confirmé ñoom ñaar ñoom ñaar nag dañu xool ndax bébé luur yi lañ dañuy yéeg wala dañuy wàcc dëgg la ñoom ñaar ñëpp ay bébé lañ kii bébé Birahim la tudd kii Blindé ñoom naa nag euh, suba lañ war a daje ci arène nationale combat boobu fàllu Ndiaye moom moo ko tëgg comme ni ko journal suñu làmb waxee ñoom naa ñëpp dañu ñëw pour confirmer ndax euh, ci ay victoire lañ jógee bébé Birahim dernier combat am moom dafa daane woon booy ñàgg euh, kii de blindé woon dernier komba am njambaan numéro 2 la daane woon ci loolu nag galaa lañ jëm galaa lu simple ba nar amee fee ca ñaaxaar ñaaning boof ak nangaan asan waalo ñu ngi xaar nag champion yi ci biir dëkk bi ñu jongante dëgg la tey moom làmbu galaal yu bëri la làmb lu simple yu bëri day am ci intérieuru Sénégal ndax a ñaakaar euh, tey benn galaa am na fa mise u un million 500 ginnaaw ñaaxar boof également day am benn gala tey trois cent soixante quinze mille lan fa teg ñaaning également day am benn gala de lutte un million cinq cent francs lan fa teg euh, de même que Ndangaan Samb foofu loolu moom dimanche la suba euh, benn mise un million moo fa am ca noonu nag journal Les Arènes lañ jëm Les Arènes nag la mu xëyee ci xët bu njëkk di ko xam xamle mooy kii di Basirou Babou di ménagère u Garga numéro 2 nee na Mama Lamine blessé wu na waaye nag mu ngi ci am ay njuuj njaaj Assane dëgg la Ndeye Mbacke Basirou Babou moom mooy manageru Garga Mbossé bi ñu ko annoncé report combat bi ndax euh, kii di Mama Lamine dafa blessé moom li nga ko waxee mu ne comme que euh, wax nañ ne dafa blessé bu dee loolu am na. mënul rek di accepter loolu ba pare di ñaanal euh, kii di euh, Mama Lamine mu gaaw revenir ñu euh, joxal combat bi le plus rapidement possible wax na également nee na Garga 2 du moroomu Mama lamin ñoom ñaar boxé woon ci même ring donc heure bu ñu ko mën a tëggee mbërëm mii di Garga 2 day jël victoire bi te doon nag Pakala mi nga xam te ne mooy avertir prochain adversaire di ko toq ci journal rek nee na ko dina ko dund loo xam te ne lu métti la lu dul fàtte mukk. dëgg la ñoom dafa bëri di Pakala ak Forja. dañu fekkente woon équipe nationale lutte euh, simple euh, kii di Pakala génne fa Forja loolu nag selon moom euh, loolu dafa nekk mer ci Forja ba léegi daf ko jàpp ñoom ñaar également bëre woon nañ 2012 Pakala daane woon ko tey nag Pakala séq ak waxtaan ak journal bii di Les Arènes li fa wax ne ne Forza dina xam ne moom la ko séqal te nar na ko dóor ba mu wuri incha allah seen jour combat bi dóor ba mu wuuri kañ dul wuuri nag di Mama Lamine ginnaaw ba mu gaañoo bañ reporté combat ma promoteur ba nag ñu ngi jàpp combat bi août jëm ak San Waalo. dëgg la loolu journal record moom moo ko bind nee na Mama Lamine euh, de ginnaaw bi reporté combat bi euh, euh, promoteur bi di Alioune Badara Diouf di patron Vox nga xam ne moom moo teg combat bi mi ngi envisagé combat boobu mu teg ko mois d'août nee narul bëggul muy yàgg bëggul muy dem ba beneen yoon comme que report am na. li gën a euh, baax rek ci ñuy ñoom équipe trois parties yëpp mooy que ñu doxal combat bi le plus rapidement possible loolu tax mu envisager mois d'août pour tenir combat boobu. di ñaanal Mama Lamine mu wér ak jàmm ak yëpp bépp mbër bu blessé ah ku ci nekk mën a dellu say combat dañu jeexale nag ci journal record mooy kii di Manga 2 dimanche nag Assane teg na mise 2 millions 500 fee ca gàll gi. dëgg la Manga 2 nekk euh, ci CNG bi nekk ancien roi ba mu fa paree nag mu ne du gën làmb day tëgg ay combat di jàppale mbër yi looloo tax depuis des années. mu ngi tëgg combat waaye dimanche di suba également ci terrain gaal gi la jëm benn mise wu 2 millions 500 la fa teg ki nga fa bëgg njukkal nag moom mooy Gaston Mbengue moom la dara jaalee bés bi bëgg ko honoré si le jour ji incha allah. mu noonu nag bu ko defee def na li war ndax Gaston Mbengue kenn du ne def na lu ne ci làmb Assane Wala damay kontaan ci yow bu baax a baax lan ngay tàggatoo di la remercier Ndeye Bakke di remercier internetu Leewtoo TV ñu doon seetaan di remercier équipe bu Leewtoo yëpp di jiital ci ak équipe bi yëpp di leen jox dig dajoo beneen yoon incha allah. di leen bu baax di remercier sama équipe bi ah Fama kontaan naa ci yow sama kaman bu woman bi Yacine Fall bëgg ci yow. mention spéciale à Moñ Pro sama caméraman bu ñaawul booba bilaal damay bëgg ci yow Ousmane Diallo kontaan naa ci yow bu baax Bamba moom papa damay bëgg ci yow administration laa jëm daal di nuyu Matouf Diakhoumpa ah, ak Aïda Diouf di fa ñu ko bàyyi damay kontaan ci yéen bu baax a baax ak ah, sama infographie Mbaye Babacar depuis Gambie maa ngi koy nuyu bu baax naan ko mbokka yaa ngi noos de mbokka yaa ngi noos waaye mention spéciale aussi ah moom maa sama chauffeur bi ah 100% assurance noonu laay defee jox leen dig daje ëllëg allah ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm te di ko sakku ci yéen. ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor suuf attention Sa Thiès ak Boy ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na ko